juróom-ñaareel natal yàlla tànn na ci xeetu rab bu nekk benn boole ko ak nooyin ci gaal gi nooyin ak jabaram ak ñetti doomam ak seeni jabar dugg nañu ci gaal gi juróom-ñetti nit ñoo nekk ci biir gaal gi ak rabu àll yi yàlla daldi tëj bunt ba bi ñu amee juróom-ñaari fan yàlla indi mbënd mi ndox commencé lekk suuf bi ñu amee ñeent fukki fan suuf si yépp daldi suux ñu duggul woon ci gaal gi ñépp daldi lab wante nooyin ak njabootam ñoom mucc nañu fa ñu nekkoon fu wóor la ndax seen gëm ak dégg ndigalu borom bi